ñu eh, ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp eh, ci gàmmu adéyan eh, bi di gërëm jiital ci imam yi di leen gërëm bu baax a baax bépp imam nak ku nekk ci adayan ñu ngi lay gërëm di la sant di la jaajëfal ñu ngi gërëm tamit képp ku nga xam ne chef de quartier nga fi wala chef de village ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax a baax ñu ngi gërëm tamit Euh, euh, maire bi euh, monsieur le maire ak délégation yi mu andal yépp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax baax di leen sant bu baax di leen gërëm di béggee lépp lu nga xam ne nii tamit ñu ngi ko ci sonn ñu ngi leen di gërëm ñu ngi gërëm tamit les jeunes yi nga xam ne nii ñoo nekk santasu ak ñu nekk dimosu ak ñëpp seen yëpp yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Euh, jàpp ci bés bi sonn ci lool nag sonn si lool sonn si lool sonn si lool waaw lépp lu ñu teg foofu rek jàpp nañ ci sonn nañ ci ñun tam ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen ñaanal jàmm ak yokk yàlla def leen ay mag ba nga xam ne nii lépp luñ fa def rek mu nekkaat njariñ ci ñoom nekk njariñu ci waajur yeeg ñëpp ñu fa ne nekk ci njariñu Adéane yëpp yëpp yëpp wax dëgg yàlla kontaan nañu bu baax kontaan nañu bu baax di gërëm tamit suñu jigéen ñi. waaw moo xam suñu yaay yi fa nekk moo xam tante yi fa nekk moo xam maire yi fa nekk moo xam xale yi ñëpp euh, ñu ngi leen di gërëm bu baax ñu ngi gërëm ci suñu jigéen ñëpp di leen ñaanal jàmm ak sutura bu baax waaw bàyyiwuñu benn yoon ñii nekk ci bale bi ñii nekk ci waañ yi ñii nekk ci togg bi moo tax ñu ngi leen di jaajëfal ñëpp nag yal na yàlla defal leen jàmm Eh, yokk seeni sutura gërëm nañu ñëpp nag sant nañu ñëpp waaw gërëm nañu ñëpp sant nañu ñëpp ngi gërëm tamit eh, famille Ndiaye bi yëpp famille Ndiaye kunda bi yëpp eh, di gërëm suñu dëkkandoo yi fa nekk yëpp kenn ku si nekk moo xam ci prof yi la moo xam ci maître yi la maîtresse ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm kenn ku si nekk sonn na ci bis bi wax dëgg yàlla dëkkandoo yi dayaan sonn nañ ci bis bi Eh, ak képp ku fa nekk na ci bis bi eh, ndax ñi bayyi seeni kër eh, ndax gani ñom ñep ñu ngi leen di gërëm ñi nga xamne tamit dañu taxaw sonn ci bis bi participer ñi def seen doole ñi def seen alal ñi def ci seen xam-xam ñep ñep ñu ngi leen di gërëm adiyaan daal mention spéciale gërëm nañu ñëpp sant nañu ñep gërëm wa dala ayul khairat yep tamit ci seen teewaay ak ci seen jàppale gi ñu jàppale ñu ngi leen di gërëm ci loolu Eh, eh, eh, di gërëm tamit wa kër alaaji moodu ngom euh ci taw ba ci euh di len wax ne jaajëf yalla na yalla defar lépp barkel ñëpp jamal ñëpp di gërëm tamit suñu équipe bi lu dalé ci amet fay ak mbolam jëm ci suuf ñëpp ñom ñëpp tamit mention spéciale amet njaay ya, waaw ñoom ñëpp tamit ñu leen di jaajëfal bu baax sonu nañ ci bës bi taxawu nañ bés bi Kifne TV tamit ñu ngi koy jaajëfal parce que tax na doomu aadama fu mu nekk ci mbooloom Sénégal wala àdduna bi yëpp euh, ñuy mën a seetaan bis bi ci noo xam ne ni tee xam ne ni tey euh, am na solo noo xam ne wax dëgg yàlla sant nañ ci yàlla waaw moo tax vraiment ñu ngi jaajëfal euh, Kifne TV ci taxawaay bi mu taxaw ak jàppale bi mu jàppale bis bi bés bi tamit. ku nekk fu nga nekk nga mën koo seetaan waaw ñu ngi jaajëfal Kifne TV bu baax a baax. الله ba tey ñu ngi yéen rek ànd ak yéen suñ téléspectateurs yi ba tey ñu ngi suñ gàmmu gi di màggal Seydina Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam. sallam ba tey ñu nekk ak yéen rek ñu ngi taxawax suñ mbokk yi waa association ñoo yor association si Adéane macha allah ba tey ñu ngi ak ñoom rek ñu ngi leen nuyu bu baax di leen ziar. waaw ñu ngi leen di fay euh, kontaan nañ ci yéen euh, ñun sant fii mooy Santassou euh, association Santassou kii mooy Mamadou Kandé moom mooy président organisation les jeunes de Santassou quoi man maay adjoint bi kii kii mooy suñu secrétaire bi président moom mooy Jibi ñaari kooku ñëwal président zone yi ci koñ bi waaw ñun organisation ñu ñëw ci nekk quoi lépp loo xamante ne ci Seydina Mohamed ci sallallahu alayhi wa fu ñuy fu mu mënut yëngu rek ñun bu ñu ko déggee ñun suñu association loolu mooy suñu suñu association noonu loolu moo tax ñu kiyee ko ñu créé ko quoi. te nag même du fii sax ci biir Adyen sax même commune Adyen fu mu mënut nekk rek boo ñu wooyee nga yëgal ñu sa kii ñun lu lépp lépp loo xamante ne mooy suñu kattan lu lañ mun nañ ko dañ ciy def waaw muy guddi muy bëccëg boo ñu ko waxee rek parce que ñun loolu moo ñu ñor parce que ñun suñ ñun foofu la ñuy juddoo ci lislaam la ñuy juddoo foofu la ñuy màggee suñu papa. Euh, foofu la ñuy maanaam foofu lañuy ñuy daal waaw kon nag ñun suñu association bi lépp loo xamante ne war na ci dëkk bi loo xamante ci lu baax la ñun ci loolu lañuy ñuy yëngu loo xamante ne baaxul ci dëkk bi ñun loolu dañ koy dañ koy dañ loolu tamit dañ koy xeex pour mu génne ko kon nag euh, ñu ngi leen di gërëm di leen di sant quoi. macha allah am na solo kon dañuy ñëw si président bi rek.

ñun nekkuñu di def lu bon ñun lu baax kese la ñu nekk di def waaw loolu moo tax depuis grand bi ñoo expliqué ñu gamoo bi ñun sax dañ ko ne kon gàmmu bi suñu koñ bii la nekk la il faut ñuy jóg si gamoo bi parce que gàmmu bi du question waa Dakar ñoo moom gàmmu bi gàmmu bi dañ ko bokk ñoom yëpp ñun yëpp waa Dakar yi parce que suñu koñ lañ koy defee kon il faut ñu jóg ñuy taxaw si gàmmu bi quoi pour mu mën na sotti quoi.

fu gars yi fu ñu ñu déglu ñu luñu suñu yittee suñu bépp ñu xam ko euh, depuis organisation bi doore bu depuis barke démb fii la ñu nekk ñu bàyyi suñu nit yëpp ñëw fii boo xool fii dafa bëri marché dafa bëri ay jeunes yu fa nekk fii la ñu dëkk fii la ñu judoo événement bu te xew dañuy woo ñu dem wuyu di màggal sedina sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu bépp euh, kontaan naa bég allah parce que boo xool événement bi mu déroulé Euh, dañu kontaan bu baax dëkk yëpp gis nañu seen bopp kon ni waa incha allah yàlla ñu fekk at yu bëree bëree euh, xew lu gën a yokk ok loolu mooy suñu kaddu mu war a mujjee. moo leen kontaan macha allah di leen laaj si gàmmu gi ndax yéen fi soog a ñëw wala yàgg ngeen di teewee gàmmu. oh maa ma c'est la première fois ma si ñëw quoi c'est la première fois. kon nan nga gisee gàmmu gi tey. non macha allah si neex na trop waaw c'était bien organisé tamit quoi mooy lépp quoi waaw kontaan nañu. même yow tamit yaa ngi koy doog a teewee wala gàmmu gi. waaw man daal bii mooy sama premier première gàmmu mooy gàmmu seen gàmmu bi quoi bii mooy sama premier ñëw foofu quoi mais nag gàmmu bi nu ma ko gisee macha allah franchement parler kontaan nañ trop quoi waaw ma yéen yéen yéen mii di nekkee yéen caméraman yi di caméra quoi parce que comme Kër TV kontaan nañ ci yéen quoi parce que taxawaay bi bi ngeen ñëw depuis xam nga depuis démb ba tey ji ni ñuy gisee seen taxawaay macha allah kontaan nañ trop yal na yàlla dafa leen sutura euh, li ngeen bëgg yéen ko xam yal na yàlla dafa leen jàmm quoi waaw. nag euh, du góor yi ñun fi muy jigéen muy góor yi parce que bu ñu ko calculé fii góor yi presque góor yi am dem nañ plus de deux cent et poussière quoi ay góor yi kese te jigéen tamit ñu ngi foofu quoi te nag euh, yàlla ñu fekkee déwén rek incha allah déwén bu ñu ko fekkee jàmm incha allah ci kattan ñun tamit luy suñ doole luy suñ kattan lépp loo xamante ne. mun nañ ko incha allah ci kàttan yàlla nañ ci def waaw ñu ngi ñaanal euh, kilifa diine kilifa ñu nekk fi yàlla na yàlla may leen gudd fan nag wér bu yaram yàlla dolli leen sutura waaw incha allah. allah waxtaan bi am na solo lool di leen kontaane bu baax di leen jaajëfal waaw jaajëf kontaan nañ lool. télé fongo télévision mbal kontona mul na euh, mun mum maɓe gamolo ñanto ntel non sande suula association les jeunes santa su damu santa suuledi ɓe ñing gamo ketolto jang nde ndalno président organisateur olde santa su jang te bi ndal man fan tammini je santa sun golle mol tammini je te keɓal euh, bi jane mo yalgo mamadou sidé ñol bi jane ɓe kay bi jane mun kadana président de jibi ñara bi jane bayi kamɓe ñol pele sopulo ñolu kambo ñolu ɓe bi jane keɓalate mais mutol kete wala ne man fota janto ka te nak bi gamo ngaji ñami machallah adi ata bake a content ayen content no warta par ce que musol ɓe sanda sugusolɓe funda sa ate musolɓe funda immobiliser ta kana ka ñomma koye par ce que ñunon mbaɗiyate te nak mbaɗiya ñi mbaɗiya yaani kusuto yena yama koye mum keta kilala kilala lundi ka, ka kidimandi o mo lundi nak machallah misilmo ɓelantamodi kon nak me mbe mbaɗi mum ɓe contonna mbe mbaɗi mum ɓe tentula momonoma ɓe dañanto alma tala so jaade kendi ala mulɓe sasa kono le so kendi ala mulɓe musolmuɓe futudulade alma tala din kendole dila je musolmu yalga mam futu almal tala ke kendol la fondingel momunema mbeɗa jaawi kuguneke ala yaalum kiiɗa seedi arala ala ɓe joola barajola nak euh, contanta franchement parlé contanta nga mbaɗino ɓe content machallah olan diyamodi quoi machallah am na solo kontaan nañ bu baax ñu ngi leen bu baax a ربنا سلاما سلاما زمزم زمزم ربنا salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk Xayraat TV ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen nuyu ne tey ñu ngi fii ci Adéane Casamance tey nag dañ fi ñëwoon def benn màggal yonent gàmmu Adéane nag dafa nekk tey gàmmu bu spécial parce que doon na depuis jamono góor gi lañ gëjoon a def gàmmu fii mais tey ñoom dañoo ñaanaat ñu ne ñu may leen gàmmu encore moo tax tey ñu ñëw dekkalaat gàmmu Adéane moo tax mais am na koo xam ne moom la toogal nga xam ne moom jamono boobu fekkoon na euh, jamono góor gi góor gi jamono yi mu fi daan ñëw fekke woon na ko mu ngi doon def lépp si euh, euh, kanamam la. kon dañ koy laaj mu wax ñu tuuti lu mu xamoon ci góor gi ak lan la doon def ak moom donc ñu laaj ko turam. Aliou Sonko. asalaamaaleykum. e eh, mbaali konton na konton ñañi maato ntelon Aliou Sonko Eh, Aliou Alaaji Alaaji moom Ngom kabiri ay daan naa commencé moom man foog nga koo dakata ñaalale et puis ku jamal kata parce que ala la moolon ala la moolon parce que wotumo biye kebe ñol wolle bije ana abar musol ntol ben ke ta ma be jele nen tata je to mom e aka ku jama itandi molla parce que lundo sotta je to aye karo faŋo yitandin a ko ali ñiŋ karo juube a be ñaami a ko kon nak mbe kuma kili ne fula le mo ñiŋ karo a be farla le a be farla fulati le a be jiila sénégal bari naa jiita sénégal a be kala maasiba baa le ti ala dum mawo maasibo bayi de a naata kele baawo koliya kuolu le naata jiijanto bari ala ni ala ñiŋ goma ay duwa mum bula moolu bulu mom ñaate de parce que naata wo duwal le ke ko duwal le ke bo ko leeji ta le de mbaɗo ɓuuɗum alhamdoulillahi bil alamin aye tamansere o tamansere fof a ɓeykatale a tamansere o tamansere a ɓeykatale kono nak e alala moolon alala moolon par ce que kaɓerin akinaji andomo alhamdoulillahi rabbil alamin a naata janto a ñanta siyarek a ñanta gamo kela woni gouverneur o naketa ñootani ministre o nanta naala janto kabiri o lungo siita ha alfadade ka ko sani nak ñin kufuloɓe ɓe laanola ñaadiɗe par ce que bi biman sakunda naata ete naatam akoy goo man sakundala nandeman balanala ndeɓe alanala kiilala e yen mulɓe alanala kiila e e ɓende alaji gon dankunale mulɓe duniya e eɓe ta man sakundal e bari e ala duwa jaɓital woman nasole gouverneur ol wolum eɓan kacca kennoja alaji gomla tanto wole fata kon nag ay ku jamale jandi molla jando ha kon alhamdulillah rabbil alamin alala moolon alala moolon quoi alaaji ngom nit yàlla la nag waaw xam nañ ko jamono bu mu fi doon ñëw lan nga doon sekk moom nan la meloon nan nga meloon ak moom jamono boobu ndax miinoon ngeen miinoon na ngeen wala lan non boobu nekkuma ci daayiraam mais moom damay dem fekkee eh, li fi bi dam koy dem fekkee mais bu ñëwee aussi moom paa bi moom pour simple la bëggul jaañ mi parce que moom dafa ne rek moom man de moom ku nekk yàlla ak yonent bi moom mun nga àndaa man man suma daayira daal moom kuy dugg foofu moom da ngay ne naa dugg moom eh, daayira yàlla ak yonent bi moom man man awma daayira yàlla ak yonent bi waaw et

parce que dafa ne maa ngi leen ñaan ma dëkk bi moom mu dëkk bi parce que temps boobu moom dëkk fii la yem fii la yemoon parce que léegi moom boo demee da ngay dem ba fële fii yem alhamdulilah rabbil kon ñaan nangu na ci dëkk bi nag wallahi aha waaw aha euh, suñu papa Aliou Sonko Aliou Sonko macha kontaan kon Mouhamed Sagna moo doon wax ak yow euh, si euh, journaliste Kifne TV dañ ñëwoon rek ne xaaral ñu xool maggu ñoo xam ne ne magu dëkk bi nga xam ne xamoon nañ alaaji Modou Ngom ñu seedal ñu tuuti si lu ñu xamoon si moom. alaaji Ngom moom xam nañ ko bu baax. parce moom borom kër gi borom kër gi faa bi moom laa taal bi alaaji Ngom la taal bi alaaji Ngom alaaji Ngom lu wax rek la def. et puis njabootam yëpp loolu la ñu toppoo aussi moom. waaw biye kebe gaañoo na nag moom dam caaxaanu alaaju Ngom bajaan mi moom bu ñëwee moom daf ñu fi ko waaw loolu kay moom alhamdulilah du la mi kontaan nañ ci trop kontaan nañ trop waaw noo gisee ren nu ñu indiwaatee gàmmu gi ndax kontaan ngeen si ren nu ñu indiwaatee gàmmu gi ak nu mu taxawoon ay jamono yëpp eh xanaa ñu ne ma xanaa kontaan bu rëy parce que dañu demoon ba finalement eh, problème Alaaji Ngom vraiment boo budul bajaan moom doo doo ko déggaat mais comme que xale bi jóg na moom pour indi lii fii moom boobu kontaante ba ci dëkk bi quoi waaw kontaante bu rëy la parce que léegi mo mu ngi beesaat encore quoi mu ngi beesaat encore xam bu yàlla may ñu quoi mo dina ëpp lii loolu moom ça yaakaar naa ko yaakaar naa ko waaw. jërëjëf euh, tonton Aliou Sonko ñu ngi lay ñu lay wax sa. kàddu hmm. sant yàlla rek. Eh, yàlla may ñu ko ñu ñëpp ñu fekkee ko déwén déwén ëpp ren waaw mooy suma suma kàddu Aliou merci beaucoup kon nag euh, moo ngi noonu ñu ngi doon wax ak suñu papa Aliou Sonko nga xam ne moom fekkoon na si magu dëkk bi lañ na moom fekke woon na jamono góor gi kon moom lañ doon waxal gis ngeen si lu mu seede ak moom kon macha allah jërëjëf kon xanaa ñu amat beneen invité rek incha allah léegi léegi ak Kifne TV ñoo ngi ni encore euh, ak yeneen invité ngeen àndax seen télévision Kifne TV ak Xayraat TV ci gàmmu Adayane ñu ngi amaat beneen invité ñaari invité la sax euh, ñu bàyyi leen ñu présenté wu ñu xool ko Papa présenté wu alhamdulillahi rabbil alamin bismillahi rahmani rahim deden to Mamadou Cissé Adayane sandasu incha allah to macha allah nga ne noo tudd Mamadou Cissé Mamadou Cissé Mamadou gis nañ ne jamono bii nii gàmmu Adéane ñëwaat na te yéen peñ da ngeen bokk si ñoo xamante ne ay magu xayraat ngeen fii ci Adéane léegi dañ bëggoon nga wax ñu tuuti ci alaaji Modou ngoom nga xam ne nan noo xamee alaaji Modou Ngom ak tam biñ ko xamee lan nga xam si moom ak lan la def si biir dëkk bi tamit bëggoon nañ nga waxtaan ak moom tuuti surtout moom Eh, alaaji ma woon ngoom samaam mam maalamu te alhamdulillahi rabbil alamin bira jang commencé ka tourner aye mum folo duwa alaye mool ma koyle pour sate e fanu wato sate man naja mais alayam ma koye ngin jang mooti yandude ñin liño ɓe mais a commencé tale ka duwa ka duwa fo masatalla e yirwoke sa en ɓe ni ɓata je ɓita daɓe jandiɓe ɗanaɓe mais a jam fata de tenga mum luwala koto alma masala yam fo amma a yadunala arjano kono ala ya ma koy ala duwa duwa aya fo mo wode aka allah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadu rasulullah a wala mission ke aya kañi jang na bota birin tawi fo ɓeɗa ka ɓorano ma nana woto machallah bira biraɗo jam fanan ayna alfaade tari jam watan tan ɓe doyari min ka bulanoma de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 wata aka aka aka florol mum bon dum de nyako raka dal dimi ñin tan do be tan do ko do sire mbiriya fa alaj fanko e, bantam buna fe ay lo batana akal si 5 minutes la muda arrêté ta sai ala la kirlo ani mansala kirlo ala la kirlo na ta dankum o mala o mala o mala o mala fanko adum problème bira ya commencer aka fola di wobina kasmas ali nga duwa nata ka droit mais ñi saade alhamdulillahi rabbil alamin molalu tendu bira botoja a ketal nak aman mbawi mais tel ga man sa tendu ngala tendu ga kiila jayi ala foko boga ala duwa a jaabitamol ma ngo lon ala ɓaake aɗum alma man sa tella ya dunda ala ardiano kono alma nayi ɓe jannatede firdaus aman fe wala mole jam fo kata ala kan kata kiila kan ayo ɗammale bula mole bulu jam aɗum mbakani inchallahu rabbi jërëjëf euh, moom moo doon wax si El Hadj Modou Ngom tuuti lu mu xamoon damono bu mu nekkoon fii moom bokkoon na si te moom bokkoon na tamit si koo xamante ne gàmmu adayaan si këram lañ ko defoon nga xam ne dëpp buñ ko defee si këram gàmm gàmmu adayaan amatul boobu après dinaa ñëw laaj ko si question boobu mu tontu ma si jamono boobu lu tax ñu yóbbu ko si këram maa ngi ñëw léegi ma dem suñu beneen invité bi moom tamit mu présenté wu mu wax ma mu wax ñu turam après tam ñu posé ko question bi présenté wu. asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatuhu. maam Lamine Lamine Ndiaye. imaam sant su Adaan. waaw alhamdulilah rabbil alamin kontaan nañ trop kontaan nañ trop alhamdulilah rabbil alamin. macha allah waaw suñu tonton Lamine euh, moom la ñuy waxtaanal nii. moom mu wax ñu tuuti si El Hadj Modou Ngom. moom nan la def ba xam El Hadj ak jamono bu mu nekkee fii comme ñoom si magu dëkk bi lañ nekk. jamono bu mu doon ñëw fii. nan la nekkee woon ak El Hadj Modou Ngom bu mu nekkee si bu mu bu mu ñëwee si dëkk bi nan la meloon ak ñoom waaw ak yan lan lan la gis si El Hadj Modou Ngom ba tey ba léegi ñu fonk ko ba léegi nii. asalaamaaleykum wa rahmatulah. soose laa ko ma soose laa ko wax man ni ko ok El Hadj Modou Ngom kabla bi naade wato mi watante dinin dolam naata addantade kontan yon kam bulanoma le nga buranoma tak ala la ilaha illallah muhammadu rasulullah ako dammal fo la ilaha illallah muhammadu rasulullah ako dammal fo mooli nga kanule fata talata dinol la momlata dinol la par ce que ɗon mbe école arabol mbamañol wolle min dada kono yo noon mbamañol yo wollentere wulu wante fana mbogta dada kono quoi a hansañ mairol kanale kala suko laye e ka kuoɓe kaye yonte fana mbokoto dada kono waɗaga kanuwol la par ce que dino kawole fo la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko damal fo waɗan fana mbokoto dino kono la ilaha illallah kumo waɗan ka bulanoma a kanuwol ñama laftawo ñama hansañ mbakoma a lannata en sowo bakale an tawi ɓaake par ce que contantale par dara minen ko a fatal noon yawol windi ko an ah, contante le alhamdulillah rabbil alamin mën nga ñu wax tuuti si alaaji Modou tuuti si moom jaar jaaram fii ni si Adayane alhamdulillah rabbil alamin Modou Ngom o bilanata Adayane jang aka kibarole fo kibarol miyalen ko immansoto folo mais bilanata jang ñing komin kada ada mo be kam tan na ko ko dibo bi na dibo bi sokali dibo men kaw to la ko ta bayla mais tedal duwal le ba ko quoi diwol ako duwal le ba ko o duwal mo la ko ke ko ke alhamdulillah na tala mais o duwal nyata ka ka ka, ka mo tankan quoi a wo ngolal ko to le ta ko jamal fanan ko mialen ko an takira te e kedal mais ale mo ma ko le quoi a mo le mialen ko ala ma ko le ala ma ko bakale a inshallah jërëjëf xaar ñu ñëwaat léegi si yow tuuti tuuti tonton euh, dañ la bëgg a laaj tuuti jamono bi mu bi ngeen defee gàmmu Adéane bés boobu sa kër lañ ko defee woon mën nga ñu expliquer tuuti lu tax doon ko def sa kër jour euh, année boobu ba pare mu yem foofu boobu ba léegi amaatul woon. Ah, gàmmu la ñu mun yaa arrêté wala histoire Casamance doro wala yaa bula mais gamo ka kenun dame ka kenun jalale ñin suuro fana lafta alala ma e to nga sabana na karke to jang paso ngalo ay kabo ke dawo da man sai no bayla bila commencer ta menga munje ay kabo ke dawo da je kake dula yiri wari untile woton fana lafta le komi jannon dernier ol kata mbe ala dalila ala hormo kan sate jari nal bin ala ala tare kordalo to fo jalo wala mun na problem wodi sai o jeli a jamfatan tellale san komin jeyatol mi jande walannan kaya ko sa añorde nan fananga kijan par ce de tawi lofana hewlono lakkata ke fanodore ay camion on soto ay ta soto ay yirwa soto alaji momon gom da hormo xam par ce rabbil alamin rabbil ke mun do ko alma ko continue la fo janni fo janni nga wallahi ko ala inshallah tey Gamou gàmmu Adéane après des années sans à gàmmu Gamou gàmmu adayan nene dekina, dekki soxla na jamono une bureau ici à Adayan. une bureau pour xamante il y aura des présidents ou il y aura un président il y aura aussi des vice-présidents ceux qui vont diriger ici à Adayan. est-ce que vous mu dekkee nii yéen nous mu toll nii pour loolu continuer allahu rabbi insha allahu rabbi bari ñi ay mbettale Mouhamed le naata aya confier ma nga dinul organiser pour ya organiser nayi mbota jang mfonala soolotale nga nga kirlo ke mbe nga kafu ñom ma nga bureau formé pour jaar naabina la insha allahu mbe nga kafu jële insha allah naa détaillé merci macha allah am na solo bu baax a baax jërëjëf léegi ban kàddu bu mujj ngay joxe poka dua alma maɓe da jaar fa ɗon noon kiila woto wotola alma momo al bungo ala bunkono la ye ela dimbal tan kayro kono nga dua mulu kijan alma ala ya jaabi satema aya jaabi commune o ma aya jaabi réseau ma senegal bu mun na alma ala jërëjëf tonton kontaan nañ bu baax su tonton kon xanaa léegi ñu laaj la ay euh, xay euh, gam ñewat na jamono bi ban taxaway ñen am pour loolu mën a continuer mu bañ a arrêté léegi ban taxawaay parce que boo xoolee war na am président war ngeen defar bureau mu am président am vice président am normal comme lépp euh, bépp daayira nu mu war a demee tey ban taxawaay ngeen war a taxawee ba nga xam ne loolu day continuer léegi aw sa hoolem yemin ko ten sa nal ton ta danu aɓe nguran ko take nala nala en makoye yo data mbawi comme ça nata ka wirindi mbe ala be makola pour ka wilindi yo mbe kudima kata ala nyin kola mbe kudima kata fo da nyon tuma nyabe tila yo fransa lono ngal nata lo nyami ah parce que mbama nyobi dan hansa mi alen ko e e dol bantale me dol bidan mi alen ko lo tira on te mi be tem o tira on be tem o lon quoi e minun gele quoi mais e biye hansa o lo tira on mi tem o lon mbama nyoto quoi ah dol bantal me dol dol ke bantal dol man nano be dol biye mi alen ko lo to quoi ana ala ma ni be kata ni ni kata dan dal be murana am fanam be lo la ko lal inshallah ah kàddu bu mujj looy looy tàggatoo sa kàddu bu mujj yo duwa ya tammi nyaten alma ale ma ko duwa ya jabi ngai dam ko no hadje fimba lala kuma barko moo nag ñu àndoon ak suñu ñaari tonton yi nga xam ne nekkoon nañ fi ñoom ñooy magu dëkk bi ba nekkoon magu xayraat daan nekk fii di àndax ak alaaji moo Ngom di ko dalal saa yu alaaji Modou Ngom doon ñëw Adéane fii kon nañ leen wax su ndos kanam ba tey ñu ngi fii si gàmmu Adéane di ak yeneen invité jaarëjëf wala mo dam damman ne ka kayiroo di. li tax mu lay may jàmm nag. minan naa ka kayiroo di. mooy nga bàyyi lu mu tere. ah yow la mu ñente a ye fatande men na ye fatan góorlu ci lu mu santaane e eh, yello fam fam ala yamaro mo ka muy muy muy muy muy muy may jàmm ah wotumo wala wala batina la sen so kay foppem bi seydina muhammad sallallahu alaihi wasallam ka to ko kila nyima sallallahu alaihi wasallam di jàpp ko nga nga fere ka nga muta ko dundu nga ah, nga baluwa di ko a ah, balaw ñaala nga doo ko ke kiila e sobo yooyu nag e ñin kuwol o min geta alaaji o mouhamadou modou ngom duggee fii ci a yowle sammanan casamance jam to yowle jaamu yàlla ragal ko e eh, wolan minol alabatora e tara alabatorewol be silantaña wala e hakkilo tuwato

kaatu ko banko ni saate kun kunte mo ñu jàngal niñ koy jàppee a yitande mool la mool ñanta bankoolu sambara ñaani donc ñun ay problème tribunal problème justice a ah, woto wole adna ako tellement eh, silo wala ñu kiiti fu mu fe fe sampe lii a ah, a ah, tram ne ñi fenk ñin silo londi ah sous préfet Rijane. président commissariat yu njëkk yi. président commissariat ak yenn maire yi. ani maire wala bii. ñu doon seedeel loolu. iwal bee eh, eh, see eh, be so be seedeyaa ak kenn wala. mu fexe tamit. ah mu fexe. ah se feere bee kenn. be yu bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ay kato bee ke fom bee nga la ka nga kanoo soto kii laa taw si la. lillahi alhamdu rabbi samawati wa rabbil ardi rabbil alamin wa laqul kibriya wa samawati wal ardi wa huwa azizul hakim suma salaatu wa salaam ala asrafil mursalin sayyidina wa nabiyana wa mawlana muhammadin wa alihi wa ashaabil kiram ñu ngi sant yàlla yàlla mu màgg mi nga xam ne mooy dogal mu door a nekk moom mooy xaadiru mooy muxtadiru dogal bi yàlla la coobareem la ndax gisuma lu ko nit di jariñ kenn mënu ko jariñ ndax neena seen jinne ak seen nit ñi ñi jëkk ak ñi York bu ñu way dajalo won jël ñu yor xolu ki gëna ragal yalla luma diglé rek ñu def luma tané tane ñu ba mu ne du ñu yok sama nguur dara ku mel noonu nag boo war na am no mëna mel nga beo, a beew mel ni da nga am sañ-sañ ci mom lu la neex dagalal lu la loolu dafa dem ba jamono bi ñu nekk di àqulu sabaan daf ci bari te nag mi ngi sant yàlla bi nga xamee ne ni mu demee yëpp yonent bi daf ko wax ndax moom la yàlla tànn moom la yàlla segg moom la yàlla sellal moom la yàlla baaxal mooy sariful xal wa sarifu lisaan sarifu muhammadu rasulullah kooku moom mooy lépp mooy buntu yàlla moo andil yàlla li mu bëggoon ci jaamam diggante jinne ak nit yonente ko la yàlla jox waxaat kayit ne wax bi jeex na maa kaana muhammadin aba aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa xaatimi nabiyina wa kaana laa bi kulli seen alim yàlla def na ko yonent bu lekk liy koyte ci moom yàlla nee na lépp yéen ñëpp mbokk geek ñi mu jural ñëpp li may déglu ci yéen ci moom mooy ngeen nangu ne man sama ndaw la maa ko yónni bu ko defee man du am ndax yàlla ni mu mel moom ñëpp noonu la yónnee yonente bi mu yilif ñëpp du xàmmee ku mu bokkal du xàmmee ku mu bokkul li mu xam mooy dëgg moo tax ñu di ko wax si saatul fatiha naasiril xaqi bil xaq moo kooku kooku moom il fatiha li ma axuli lépp dafa tëj woon moom la yàlla génn ci moom ci boppam mu doon caabi mbiram lépp tijjeeku ci Moustapha la tijjeekoo saatul fatiha nag boo gisee mu foor dafa doon julli boo xam ne commencement ba ndigal yàlla la inna naaha wa malaykatuhu yusalluna ala nabi yaa ayyuhaa llaziina aamanuu sallu alayhi wa sallimu taslima koo xam ne yàlla ci boppam binde ko ba pare muy abdu di jaam yàlla yàlla mi ko bind wax la ne man yàlla maag samay malaaka dañuy julli ci moom yéen ñi gëm julli leen ci moom ndigal boobu moo ubbi salaatul fatiha allahumma salli ala sayyidina muhammadin ndigalu yàlla bi la waaye mu teg sa ne noonu yàlla sant yi julli ci moom noonu la nekk koo xam ne il faatixi li ma uxliqa la li tëju woon yépp ci moom la ko yàlla ubbee mooy miftaaxulaay mooy caabi yàlla waaye wal xaatimi li ma ab yonente dootul am ndax moom la yàlla tëje booleem ñi doon ñëw doon ndawal yàlla mooy wal xaatimi li ma naasiril xaq koo xam ne ki ko yónni yàlla la day màndu kon nag moom dëgg rek lay gis te dëgg lay dimbalee dëgg du dimbalee du fekk dëgg mu koy dimbalee neen mu moom naasiril xaqi bil xaqi dëgg lañ ko yónnee jox ko dëgg muy dëggal dëgg moom dëgg lañ ko yónnee jox ko dëgg muy alxuraan muy dëggal dëgg di yàlla ndax inna laa huwa xaqu yàllaay dëgg bu ko defee lislaam booba amul lu nit war a lu génn li yonent bi yor wax ko jaam ñi mu doon dëgg mënul nekk fa maasaa bax dal xaq ilaa dalaal gannaaw dëgg neen moo fa ne ndax boo fasul dégg alxuraan déggoo addis ci neen nga ne loolu waxu yàlla la waxu yàlla la ki nekk ci neen nag dootul jariñu tey boo ko déggalee mu gaañ la moo tax Mamadou Moustapha Ngom sonnoon ci dox ndax yërmande yooyu ci yonent bi lay bàyyi ko nekk ay jëmm di dox ci biir xeetam di ko yeesalal liñ ko yónni loolu nit mënul weesu nit mënul am may ba weesu loolu ndax ñoom ñi yàlla may yépp pour yeesalal yonent bi la mooy mujjaddidu na mujjadid mooy yeesalal yonent li ko yàlla yónni mooy sëriñ mujjadid nag di nga am may bu weesu njàng déedéet ndaxte njàng làmbatu la ci dex dañu koy may mu xam nan lay deme ci jamono ba mu ñëwee xam la fa xew xam la ca mu am secret dox mission ba ndax yonente moo foore noonu kooku mooy mujj ji su boobaa moo tax yàlla tëj yonente yi def ko nag gannaawam ay nit yu koy yeesalal yeesal booba nag mooy lékki Mamadou Moustapha Mamadou Moustapha Ngom muy dem ci fépp fu ko yàlla dogale mu yegg fa fii nag dafa bokkoon ci dogal bi ndax mbir yàlla kat fu mu dem yàlla ko ba yóbbu de ndax inna allaha baalixun amruhu xad jaala allahu li kulli seen xadra yàlla mooy jotale mbiram te lépp lu doon dafa am dafa bu yàlla rek la ne ni lay demee fekk noona yàlla wax amul manul nekk moo tax yàlla ne bu ngeen bëggee ma xewal leen wërsëgal leen ubbil leen lu leen jafe da ngeen may ragal mooy waman yati xilaahu yej alloxoo maxrajan wa yarsuq min xaysu laa yaxtasibu wa man yatawakkalu alallah fa huwa xasbuhu inna laaha baaliqul amruhu xas jaala laahu li kulli shay'in qadra moo tax yàlla wax aaya boobu ci suratu talaax yàlla dene ku ragal yàlla bu diglee def bu teree ba dina la defal maxarajan maxarajan nag mooy yàllaa ci ciy génne xew-xew bu mën am ak loo xam ne njàqare la tiis la soo bëggee yàlla génne sa te doo bind sangoo doo takk loola la yàlla jox Moustapha mu doon saafaree xeetam yàlla wax ka nan lay demee mooy ku ragal yàlla ma ni taxidaa teg ca loxo maxarajan mooy yàllaa la ciy génne lu mu jafe-jafe yàlla génne moo tax xamuñu ne lislaam mooy gàllaaj bi dul toj yàllaa la cay te mu ne bu boobaa nag wa yarsuqu min xaysu laa yahtasibu ma wërsëgal ko foo xam ne xalaatam newu foon damay neex rek ma yóbbu ko béréb jox loo xam ne masu ko xalaat mooy wa yarsuqu min xaysu laa yahtasibu mu ne wa man yatawakkalu ala llaahi képp ku ci yàlla nag foo xuwa moom yàlla xas bu xoo war na laa doy sëkk ndax moo bind moo moom moo yor mooy rabbi naas maliki képp ku juddu moo lay mooy andi soow sa yaay bi mooy lay xamal nooy nàmpe liir kenn mënul wax moom foofu yàlla mooy rabbi rabbi moo ko moo ko juddul nee na yaa yaay bi daf ko ëmb ci force dina ko indi ci force loolu yàlla wax ba pare na nag su boobaa may rabbi ni muy nàmpe maa ko koy xamal te day xam ne am na weer wu mu nàmpe doon loo xam ne du nit benn bu mën a moom booba man yàlla may wax moom mooy rabbi naas fu ween yu mën làqu dina ko dina ut même bàyyi ma fu ween yu yaay bi ruq-ruq dina xam fa mu ne tew dina xam buy nàmp fa nu muy def ba meew mi ñëw bàyyi ma bi koo koy rabbil alamin li mu binde li mu leen binde ne leen moome yàlla du moromi dara yàlla bu fekkee na ni dafa taxaw di ko fàtte moom day mel ni daf ko tey ndax yàlla kenn waru ko fàtte moo def jant bii saa bu génnee war nga ne yàlla am na mu def ko mu sox génnaat penk su ëllëg sa fan lay gaar kooku yàlla du réewul dara lu mu def nag boo ko contré da ngay xaru bëggoo sa bopp yi ndax yàlla du tàggoo ku muy tàggu yàlla nee na aw ma conseil walam yàkkun loxoo wala min rasuli amul kenn ku am cër boo xam ne man nga mën a jox digal may def man maay yàlla su boobaa rabinaas booba xale bi day xam ne muy nàmpe mu dem ba commencé am ay béy mu tàmbalee jàng lekk ñu ne dañ ko feral sax mu yeneen yu gën a dëgër doon def ñu feral ko muy dox du dox ba yow la mu toll woon di màgg dem na ba yow mi ko jur gis mukk ni xale bi màggee te yaa gis muy ñëw rek ba mu yàgg mu tolloog yow ba mu yàgg mu sut la ëpp la bu la fiiree nga daal kooko yàlla yàlla moo ñu tax a jóg ak Seydina Muhammad doxuñu nag ci réer nelawuñu bañ ñuy yee feebaruñu bañ ñuy faj ndax ku yàlla defal la ñu àndoon li mu yor gaaru ci njàng déedéet yàlla mi xam ne ba ba xam-xam ñëw jur njàng ci jàng day jële ci xam moo tax xam-xam mooy jur njàng te nag njàng dafa bari siiw ba ñu bari dañ defe ne njàng moo fi te ñu bari njàng la ñuy wax ba ñuy wax ay erreur du nuroon njàng mënul bokk parce que yàlla daf na yonent bi jàngul ci kenn waaye mooy ci raw ñëpp moom sëñ naa Muhammad mu ne boo fa jógee nga dem ba ci waxambaane ba jàng muy maliki naas nga xam ne am na ku la moom looloy buur boobaa maliki naas lay tudd dootul tudd rabbi naas yow nga xam yow jànq mi ne am nga ku la moom de tollu nga si nag bànneex ak doole kàntan ak njariñ xamal ne am nga borom li mu la digal def ko yow jànq bi waxambaane yu tëm nga foofu nga toll fi la la kar ngay jànkonte ak dee doo tiit doo ragal te xale bu ndaw nga dix ah, foofu ngay yem boo ko paasee da nga aase doo dem militaire kon militaire ndaw la kan moo bind militaire bi ku koy ku ko màggal ku ko jox doole mu dem ba ñu bëgg a fàtte kooku dina fàttalee boppam li jee doon dindi dina li koy waral mooy yi may expliqué yàlla dina fàttalee boppam kenn man ci dara ni mu bind àddina yónni noox ñu di ko jéem a euh, rey mu def mel na ndox jóge ci asamaan ndox mi génn suuf mooy teen teen yi ngay gis nii ak forage yi ndox booba keroog dañ ko jox ndigal mu génn ndox asamaan génn ku ci gaal ga dee nga kookoo yàlla affaire bi fàtte yàlla bi mooy jur musiba yàlla kenn waru ko fàtte te dañu dem ba fàtte yàlla même am nañu beew ñooy dogal ñooy daganal ñooy araamal ñooy yóbbu seen bopp àjjana ñooy garanti nit loolu dafa araam ndax na bi lu mu sañul kenn waru ko sañ Seydina Muhammad daan wax ne Faatumata bintu Sa'd min maali maa sëf laaj ma sama àll lu la neex ma ne lu ma ne dara ca yàlla te mooy jur Faatumata bintu te mooy xayri xal mooy rasul rabbil alamin mooy rahmatan lil alamin mooy basir mooy nasir kenn du moom te sañul loolu nabi dafa ragaloon yàlla ba teel a bejaaw lu yàlla digle mu nekk lu mu tere mu ba bi mu teelee bejaaw Babacar laaj ko mu ne ko dafa ma bejaawloo juróomi saar ci alxuraan la yàlla wax la ragal a ragal di ka ragal ba teel a weex Babacar ne ko sa bejaaw bi moo mag say at mu ne ko waaye doomu ma bee jaawloo juróomi saar ci alxuraan bokk na ci nag xóot bee jaaw loona ma ñu ne ci fan mu ne fi yàlla ne fastahim kama umirta wa man taaba maak wala tatxaw innahu bi maa taxmaluuna basira mu ne yàlla ne li may digle man ni koy digle naa ci taxaw ak képp ku ne na jullit nga wa man taaba maak moo tax amul benn nit boo xam ne lu sa may bari bari loo nekk nekk sëriñ manoo fexe ba jéggi alxuraan bi ci wax booba manoo ko soo ko defee ku xàmmee na la jàpp buy uti sëriñ na la jéggi uti kaneen naa doo sëriñ manu nekk nit ki lu muy tere yàlla daf ko ne yow mi koy tere taxaw ci directement yonent bi fastaqim kamaa umirta directement ci kawam wa man taaba maaka nag ak ku ànd ak yow wala tab xaw nag bu leen beew kenn mënaluma dara man yàlla maa bind te sama coobare la kenn du ma ma suuf damaa bind kaw ba pare féete kaw kaw mooy jàll jëlaal kenn du ma dimbalee dara kon wala tax xaw bu leen beew léegi nag da ngay dégg ku beew bay beew lay nit beew bay beew lay nit di assuré muy mooy yàlla ba naa ajjana nga jëm jël benn ngëneel ngëneel bu ko yàlla na ngoo ngay day am de mais bu ko nanguwul du am ndaxte nit dem na màkk ba ñëw ajam nanguwul moo tax ñaan xajul mabroor ay bu nangu ni mu amee la am aj su nanguwul boo xamee da nga boo ko defee am nga njéggal nga jàng ko noonu rek bu neexee yàlla boo ko defee du ko nangu ba ngay am njéggal yàlla ku mat a moytu la nee na wala yamumuna makrallah ilaa xawmul xaasirin man sama jay kenn du ko wóolu lu dul ko na ma per ma ko ci alxuraan alxuraan nag nitu yàlla bu ñu xam ne dëgg si la moom lay doxe Mamadou Moustapha Ngom kenn jàngalu ko mais alxuraan mom la doon doxé te mom la ñu taxawee tey du ñu dem fenn di lacc lu ñu war a wax déedéet ndaxte wax baa ci alquran ñaarel ba addisu mustafa aatiqu laaha wa aatiqu rasul qul aatiqu laaha wa aatiqu rasul fa in tawalaw fa innama alayka ma qumilta wa alayhim ma qumiltum in tutuhu tahtadu wa ma ala rasul illa balaaxun mubiin toppaleen yàlla alxuraan toppaleen yoneen alxuraan mu ne nag bu ñu du mooyoo lool yow yaa sab yeen yonent doo yenul kenn ñoom it ñoo waaye ku toppa yonent te jub ba in tutu xooxu tax te doo su ngeen ko toppee rek jub wa maa laa rasul nag ilaa balaaxul mubiin du war ndaw ku ñu lu dul mu jotale te leeral na leer ku jàngul bu toogee déglu du du fi ñu loolu mooy balaaxum mu biin ba mu dugg sabaabam rek ci pal googu la ne moo tax mu mën a dem du nu di seet lu ñu de ndax li ñu war a wax ku jàng ku nekk ku jàngul ku toog di nga xam ne lii dëgg la yàlla jóge ci maali mooy dangay xam na am na ku la moom mu indi maaliki rab bi mooy ki yar maaliki mooy am na ku la moom jànq nga am nga xel soxla nañ la léegi yow xamal ne maaliki dangaa am ku la moom ndigal bi mu la digal def ko lim la tere bàyyi ko ndax mësoon nga ku dee xambaane mu nekk xamal ne am nga maaliki ku la moom li mu digle defal li mu tere bool nga bëgg laaj mu ne wa maa xalaqtul jinni wala in si ilaa leex bu doon binduma jinne yi binduma nit ñi lu dul jaamu ma kon ku ñëw àddina jaamu ma moo la fi indi naan dafa ànd ak nit dëkkuwaay dafa ànd ak nit sol lu baax dafa ànd ak nit waaye li loolu lépp la ko waral mooy njëriñ nekk sama jaam jaamu ma ndax maay yàlla kenn du ma fay maay maalik yow mi diin keroog ma ñuy fay man dongo la maay fay kenn du fay mu jóge fa nag daal ne ilaa xinaasi man maa yàlli nit rabbi moo yàll maaliki moo moom ilaahi moo yàlla ilaahi naa bu nit ki demee tam ba kawaram yi ñuuloon di weex bëtam yi leeroon di lëndëm jémmañam ji bëñ yi wàññeeku jëmmam sax mu xam ne mu ngiy jeexal yàlla andi ilaahi naas ne na xam ne moom ku màgg ku màcc tudda allahu na xam ne mooy ilaahi moo andi baat bokkul rabbi naas ku jurlu moo la yor maaliki naas ku màgga moo la moom ilaahi naas ku màgget mooy sa moo tax xulaawoo waaye li muy jariñ si nit ñi kenn xamu bi ni ñuy jàngee defe na l'islam pour àjjana moo nii rey islam bi ni ñu yàlla binde la ko andi pour ñu mën a dunda dunda gu teey dunda gu set bu ñëwee tubaab bu liggéeyee dara da koy utal notice yàlla bindanu defal nu notice mooy alxuraan boo toppee defaru tey defaru ëllëg ndax ku defaru mooy dugg àjjana mais ku yàqu koy safara seetal sa kër rek lu fa yàqu nga jël ko dugal ci mbalit mi mbalit mi nag taal rek ku yàqu nag dem safara taal rek ku defaru dem àjjana kon li lay defar ba nga dem àjjana mooy lislaam nit ñi nag ni ñu koy ni ñu koy firee ci nit ñi li ci ëpp baaxul moo tax ñuy moo tax ñuy mooy yàlla nii di ko waaye bu ñu xamoon ne islam seen njariñ la ñëpp koy bëgg l'islam boo ko toppee sa addinaa jëkk a rafet nga am mujj gu baax même sa kantan léeg-léeg da koy deewaale lan moo tax leer gii dund sa jëmm na yàlla bu waxee day na leer moo tax bu teree day nekk poson poson ba mooy jàpp nit alak ko muy dund feebar ñu seet na kenn waru koo faj fekk musibaam bala yàlla jël sotti ko ko mu dugg ko nekk poson ci yaramam moom nag du xam loolu da ngay jël islam rek yóbbu ko ajjana mbaa safan nit ñi du ñu xam seen bopp ci lislaam loolu moo tax nit di màgget rek jekki-jekki am feebar kenn du ko mën a faj bu dul isaab pour ñu isaab la dindi bàkkaar bi pour nga mën a dem ajjana yàlla daf lay gaañ ndax yaa ko def te tooñu la moom la man man amila saari fa li nafsihi ku def lu baax sa bopp wa man asaa ku ñaawal fa alayha day këpp sa kaw këpp boobu mooy na jëmm duggule nag di la alak ba kenn ngay dee te képp ku dee ci alkaane yàlla mënul dugg àjjana bu ñu naxante bu dee naxante donc duñ jóge fa la ñu dëkk matul jël di doxi kilomètre di ñëw fii lekk ak naan bi du soxal ku xam yàlla nit yàlla yi dëgg li ëpp sax du ñu lekk lu bari ndax li ëpp leer day ne moo tax ñu am doole baatin doole biir ndax li ëpp seen lekk nii leer day ne moo tax yonent bi ne ku néewal sa lekk li li des nekk leer sëñ naa Muhammad ko lislaam nag dañ ko war a xam amul benn nit buy toog te amul diine léegi da ciy nen rek di dem di ñëw boo nee sëriñ jën alalam jox ko defe ne am baax na déedéet ku bëgg sa affaire baax da ngay jaamu yàlla ku ragal yàlla sa affaire baax matul ci kenn su boobaa bu ragal kenn del jàpp ndigal def bàyyi tere nga xool su amee problème nga jàpp nga ñaan yàlla yàlla kuy dégg ñëpp la te dégg na joolaa dégg njaaga dégg ku yàlla bind ni mu la binde noonu la moome du tax nga dem ba génn ci moome nag loolu la Mamadou Moustapha ay dox li ngay xamee ne bu la nee man maay max biyu bi jëng doon junja léegi ak am na njaay war nga seet mag bi boo ko doon loo war a loo war a taxawee alxuraan ma doone maa bi laa rek ñu ne am na may de moo soppi woon mbir ma moo jaaxal moo dindi woon lii déedéet yooyu nomination yàlla la miracle du tax ñu gëm la jëfi yàlla la te kenn mënatul jéggi Moustapha Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam comme kenn mënatu koo jéggi soo ñëwee mooy nattukaay bi bu ñu lay nattee ci yonent nekkuloo fa ak loo mën a am ci nay nañ ko bàyyi jow du jariñ dara du jariñ dara yàlla dafa bind nit moom ko wax ka nan la bëgge te yàlla du moroomi kenn moo waral boo dee ñu yàlla nga dañ lay natt ci alxuraan nattali ci addis xool nag sa doxalin ndax yàlla léegi laa ko wax ba mu ne yonante ba li ngay digle taxaw ci amul benn wàll yi bu mu bax moo tax bu la nit di def lu araam bul jàpp dafa am lu muy jéggaloo ndax yonante bi nee maliku kasaab buur buy fen ayulul mustakbir ku ñàkk di rëyu buur buy fen ku ñàkk ba pare rëy maliku kasaab mooy buur buy fen ku ñàkk ba pare di rëy waa àttekat bu dëngam mooy ki xam ba pare jubalu rek bu boobaa moom dafa bokk si ñi nga xam ne dañuy ne yàlla safar lañ bëgg a dem yàlla tooñu leen nag ndax yàlla wax na lépp nee na wa maa ana bi xaafirin ama taxmalun li ngeen di def ma baleen noonu ngeen am wér am jàmm yi dem di ñëw da ngeen foog ne dama sàggan sàgganewu moo leen dama xam ne wa maa antum bi mu ko gis si na fil ard yéen ñëpp kenn mënu maa rëcc wa man man lam yax man lam xada man lam yarda alal xadaay mu ne ku gërëmul li ma àttee walam yasbir alal balaay mënoo muñ samay natt walam yaskur ala nixmaay mënoo sant samay xéewal walam yax na alal xinaay mënoo doyloo li ma la jox fal yaxruj min taxti samaay fal yaxruj rabban siwaay jëlal sama suufi asamaan nga jaamu ji borom bu dul man comme manul nekk nag da man te kenn man te génn suufi asamaan bi kenn kenn manu ko Mamadou Moustapha nag bi muy wax ne man na fekk na jaaxal nañu ci kaw xam te jàngul di alxuraan wax aaya bu nekk li muy jariñ te alxuraan yàlla daf ko firi ku teg ku tilim de kuy bokkaale yàlla ku tilim yàlla daf la firi alxuraan moom bi muy def noonu mu dem a dem a dem ba léeg-léeg feebar feebar bu kenn foogul na day wér du ko laal sax dina toog fi mu toog ba kooku jógaat dem loolu lépp taxul mu wax moom ci mu doon Momadou bi mu nekkee ndaw daana ñuy bu ñuy jiwul nii ci di jeexaat ci gerte mu ànd ak moroomam suñu jeexaatee ñoom bu toog fi mu toog rek suñu paree moo leen dëppale bu ñu doon taxali du sonn dem bu ñu paree moo leen ëpp say daana toog ba yàgg mu jox morom yi ay bant bu dee guddi mu nekk tors ñuy niitu bu ñu yeggee bay jigéen kër gi mu nangu yëpp da moom daana def loolu daana gas kan daana def ñu loxo wàq ndox di jënd ñu def naan def li ñu bëgg booba tam comme nag lu ko xale yi defe na day luxus naa nu xusal nu moom bi mu nekkee ndaw dafa dugg ne comme comme julli yi sa sa mu ne yaay ji wér naa mu ne ko doom wér mu ne ko waaw wér naa de yaay mu ne ko waaye na bëgg bu ko wax bi mu demee ba toll ci yenn at yi juróom fukki at juróom benn fukki at juróom fukki at ci côté loolu la door a dem fii ci ne maa ngi jot ndigal tey na leen man maay Mamadul Mahdi daal di ne billahi wallahi tàllaahi maay Mahdi mu des beneen dog ndax Mahdi ñëw na dee na ñun ñoo fi toog tey moom dee ñu dem denc ko waaw ku ne maay Mahdi dee te li nga liggéey liggéey koo ko lan moo bu dee xel dong da ne comme moo ko waxoon te dee la te liggéey maadi penku ba sow la lan moo tax deful loolu il faut question am ne yàlla na fekk nga xam la fa ne que amul loo xam ne nag da ngay génn di ko wax nit ñi àndul ak xam-xam mu doon dagal daganul ndax ca moomoo kenn ca waroo sànq ni day araam lépp looy taxawee da nga koy xam ba mu ba mu duggee suuf aali ni dégg nga ne ñu ne maadiw yonente nee na juróom-ñaari at lay am ci àddina juróom-ñaari at yonente amu ko doon yonente kon maa biyu mënu koo am doon doon maa biyu mais lan moo waral addis yonente a ko wax de mu ne juróom-ñaari at lay am te la mu yor dem dee julli te jullee te juróom-ñaari at mooy fi ñuy duggee kool yonente amu ko bon maa bi man la am yonent bi amul kon addis moomu lu mu firi ba mu génnee ba ñaaxal sa saalum ne maa ngi door a jot ndigal ne maay max bi muy 88 94 mu dee muy sept kooku nag ñëw def lu jaaxal nit xam te jàngul dee ci juróom-ñaari at mooy génn ci kéemtaanu yàlla nekk Mahdi ki ci suuf mooy Mahdiyu ki ci asamaan mooy Isaa bu ki ci nekk rek ayaatulaay nga kéemtaanu yàlla pour yàlla rek la nit ñi dootul doon waalaat day andi nit ci suuf andi nit ci kaw muy ki ci asamaan ak suuf ñu daje addina bii dañ ko réglé kenn bi ci man dara ndax Mahdiyu yonte bi nee li tax kenn mënalu ko tus mooy am na leer yor na yetu Musaa yor na jaaru Suleymaan yëtu Moussa wa moom la Moussa doon jaaxale bànni Israël waaye jaaru ba moom la Souleymane yore woon nguur ga saa bu bi dajee dootul doon dara kenn du ko xam jaaru booba dina tegu ci loxol man yëtu Moussa dina tegu ci loxoom Rasulullaay dana doon jiitam ànd ak moom yàlla nag dimbalee ko ay malayka yammaduhu laahu bil malaykati kama maddal muminuun inda xaswatil uxur yàlla da koy dimbalee malaaka comme ni mu dimbale woon malaaka sa xare Uhud ba yonente nee na loolu maa di daamee ndimbaloon malaaka amul nit bu ci amul dee bii mu dee ci sept ans nag moo lay may xam-xamu nga xam looy tooge lépp addis la du ñu wax lu ñu xamul ndaxte manul dem bàyyi fi koo xam ne day làmba toog di kaakaa manul nekk kon yàlla ci boppam jënd ci ñun lii ñuy dox nii dañoo xam lu ci ne ngërëm bi ci continuer bu fekkoon ñu wax lu dëgg du continuer ke même ba suuf bii ñuy toog di màggal na bi dañu xam ban daraja la suuf bi amee suuf bii te ñu bëri xam nañ lu nekk suuf bi suuf bii li muy jariñ ñu bëri xam nañ ko te lu tax yàlla si ci ànd ndax moo ko nomee maa bii mënul yomb maa bii foo nga ne njuuma il faut nga jaaxal nit jaaxal jigéen doole ak ca yàlla ñaar ñu bokkoon diine ji wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun il faut nga doon njuuma تلوانا كي يالنا الجوغي مرتا يالنا تبينينا بو بجي خم مهدي موي المهدي يهرج في آخر السمان خربة يا مساء ما ديو جي جنة كي مجي جمال فجي جاي لو يوم الخيام ناك مجي جي تنجي لي نجانغ أخم خم بوكو مجي جي ألين أبي تالي بجيك فين كي مجي جي ما جيك أمي مي بابا بوكو لك أنوار أنبيائي والمرسلين لا يلان تيميون اجينو دي تيميري دين يلان اك نياك كي دين يلان اك نيان تي دين يلان سين لير بابا بوكو لا لير بي ام غناو نبي نا لير يوا مونجي تيجي لا سيدنا محمد موي خاتمي نبي اينا كين دسول مي لير اولياء والاحتاب الاحتاب موي خطبه خطبه موي دون مو جدي يسال يلان سي ديغنتي دين ني التاجا مهدي su maadu yi ñëwee nag mooy mujjee yeesal ba li mu yor kenn di ko yor ci ñoom moo a leer yonent yi jeex na ca Moustapha mais maadu yi maadu yi maadu yi bu ñëwee mën na nekk ñu ordinaire di liggéey loolu manul ne kon leer bi mu yor fan lay bàyyeekoo ci ban leer lay bokk moo tax mag ñu ne wàllir am na xutbu am na am ñu ne wàllir amul te jàng ba tax ñu loo andi ñu ne bidaa loo andi ñu ne du sunna yonente moom wax na ba pare kenn yokk kenn du wàññi yonente moom waxee ba tey am na ñu muy waxal kon bu ñu tënk mbir mi ci téere yi manul nekk ñoom nag dañ ko tënk yi ku lay neex wet bi ne loolu du sunna yonente mas koo def même sikar bi dégg naa ñu naan di sikar kaw bi daala la yow yow yonente yonente ba mu demee ba tey sunnaa ma ngi dox Moustapha am nay nit xamuñu leen nag nañu màndu mais dañ ko weddi ba loo wax ñu leen waaye dañoo am problème ñoo ñu def loolu problème bu mag lañu am parce que mënu ne yàlla du sàgg na boppam te lislaam bi jeexagul te yonente dem na te desoon na junni ak ak lu teg moo tax mu ne fal max biyu innamaa yasxiru fi aaxiri samaan xurba xiyaama saa maa di ngi jënd te mujj jamana bu jigañ saa ndax téeméeri at bu ne am ku yeesalal Moustapha téeméer yaa ja mujje ci la maa di dina mooy axiru samaan pour ba xiyaama saa inde istidaadi fitna fitna ba di crise ba day tar wakkatadu suma wa jawra bàkkaara njuba di day bari mu ne booba waxi ba pare mu ne wax ci xaadi naas alxidaa ci daa yonent bi ne nit ñi jàpp bidaaya mu yi ñu sos bàyyi fa alxuraan bàyyi at yi toppa sos yo man yonente laa man maa gis yàlla ñu na man nangam laa ci naa man yàlla laa mu ne wëb ci naas an naa ñu jàpp bidaaya ya ñu sos bàyyi fa jubu yàlla ga mu ne waxilatul xayra fil ardi lu baax néew lool ci suuf si fa yursilu xoolaahu yàlla doon ko yónni moo waral dee bi ki yàlla yónni mu nga ca yàlla moo tax yonente bi ne fa yursilu xoolaahu yàlla yebal ka waaye laara soola dug yonente innama haadiya mooy gindee wa mursidan mooy jubal wa muslihan mooy defar ba yusluxu bihil bilaada wal ibaada ci moom la ñu defar réew yo ak jaamu yàlla ga ahadan min muslikin kibaar haasa min alamaati saa nee na maa bii mooma kenn la ci ñu doon jëwee nan ci ñu mag ña kenn la ca ñu mag ña mooy imaamul mahdi mu jëddi duuna ya maa diwa leen di tëg ñu yonent bi tëg yonent yi bu boobaa nag ndam li tuus dellu ca yàlla moo tax ma yàqul na maa ca far nee na njëriñ bi nga wax kañ la bi nga wax kañ la ma yàqul na maa ca far mu nga sa jëli sa dëkk in kuntum saadiqin ndegam li nga wax dëgg la kañ la yàlla na yowmal fat daan fa xulli si ne kafaroo imaanukum bés boobu ma lay ndamal ñi weddi woon seen ngëm dootu jariñ moo tax maa biyu doom la ci yonent bi benn bi jëwriñu yonent bi la ndax ku yàlla may gannaaw Moustapha jëwriñam la maa du nag mooy te jëwriñ bi looloy max bi maa du doon bari ñu koy woote te xamuñ ni muy demee boo xamee ni muy demee doo ko maa du luwaa bu yàlla tëral jox ko yeneen boo xam ne boo ko waxee ku yor xel sax xam ne maa du du xëy rek am nay ne mën dafa am fu muy jaar bu fa jaarul du moom mu ne bu boobaa yàlla yebal ko waaye du yonente de ndax man maa tëj yonent yi waaye kuy ju kuy jindeel la nag kuy jubal la itam kuy defar la ba réew yi sax ci moom lay defaroo jaamu yàlla moo tax tant que ñëwul réew yi duñ jaamu yàlla gi itam dafa am oro da ngay gis fajar kii julli fajar six heures moins dix kii dem ba six heures moins kii dem ba kan moo ci fajar kan moo ci fajar est-ce que teg nañ fa yursilu xoolaawu mooy yàlla yónni ko moo waral dee bi andi yursil mursal lay firi dem ba mel naw ndaw yonente la mais boo xamee du yonent mooy mu ci ca yàlla moo tax yonente ne yàlla yebal ka moo tax mu dee ci septembre yàlla da koy yëkki yebal ka mu dox ci sarus bi Isaa ibnu Mariam bi am ñaari junni at ci kaw Isaa ibnu Mariam dana wàcc fii ñu a day ca Siri ca Saam yonente bi nee bu keroog maa di naka Isaa doo ko jiite nit julli Isaa naka ma li xaamal la su ma yu salli Isaa xal fa doon julli min wala di mahdi yu alayhi salaam mu ne Isaa julli ci ginnaaw góor ga sama doom ca Siri ca Saam Dimas foofa la ñuy tege ndax maa di jëkk a feeñ ba pare Isaa door a wàcc xanaa xamoo Isaa dem na fekk benn xeer bu rafet muy laaj yàlla lu ne fii mu wan ko ko mu fekk ko góor goo xam ne am na ñeenti téeméeri at di jaamu yàlla mu xamal que ñi dajeeg yonent bi mujjee ñooy gën góor yi ngay yéemu yow Isa Isa na laytani min ummati muhammadan yàlla te ko noo bokk ci xeetu na bi bu àddina yi jeex dañ ko koy defal xanaa xamoo ne maa jóg Isa ndamu Seydina Muhammad la ñi nga doon ndamal ci ñooñu lay tëjoo moo tax Moustapha mooy Basir mooy Nasir moy Abdou Jabbar Abdou Khafour Abdou Latif rahmatoullahi Seydi Jibril Seydi Mikaïl Seydi Asrafil Seydi Asaïl Seydi Jinni Seydi Kawni Seydi Sakhali wal Sakhalini wal Faariqayni min urbin wa min ajabi Seydina Muhammad waaw kenn du kenn du du ñu la kenn te ñoom ñëpp moom la ñu doxal service mais ndam ba muy am ci àddina balaa ndamal aaxira boobu la max du di jiiteeg Isaa ma xamal leen loolu. kon bu fekkee dañ ne maa bii rek nga jàpp ne am na may feeñ na commencé tantal doo xam ni mu demee maa bii ak Isaa tuur ndamu yonent bi rek ndamam la moom Moustapha kon ku am sa temps bi jàppal ci Rasulullaay roy ko bëgg ko même bu ñuy ñëw fii looloo nañu jàpp ci nabi roy ko bëgg ko nga xool ndax di nga nuróog ko defu du nekk te gis nga gàllaaj dëgg mooy nga gëm yonent bëgg ko nga taxaw ci bàyyi lu bon def lu baax nga xool am nga sa gàllaaj bu bopp gàllaaj bu dul tojo bopp kenn mënoon la tus amul fooy lañ mën laa trop mënul nekk waaye bu boobaa nag dañuy wax di wax ba nit ñi ree ñu jéem nax nit ñi ne leen noomal ku jóg rek dem ci ñoom joxe sa alal déedéet man man bi rek soo dégg nga Abdoulaye rek moo man kooku nga xamee ne moo fekk ku ñu dagg loxo mu jël loxo bi teg ci raay mu dellu si mu fekk ku ñu bënn na bëtam mu teg bët bi raay mu dellu si kooku mooy ki nga xam ne moo gàggan ci Mamadou Bassirou ca Kaaba ga kooku moo jàngal Mamadou Moustapha Ngom ndaxte ba mu demee ba nekk ci bàmmeel Mamadou Bassirou ñëw mooy burda bi maam Alaaji Maalik di ubbee mawlud lu tax kàddu yonent ba da ne moo tax ma maa di jël burda di ko ubbee mawlud xamoo xam na li tax kan di yonente dafa nekk ci burda keneen dafa ne fa mablawul ilmi fiihi annahu basaru moom moom ma dugg si fa mablawul ilmi fiihi annahu basaru ñetti yoon yonente bi ne ko wa annahu xayru xalqilaahi kulli te boo mun ci bàmmeel nekk ko koo moo gën ci ku yàlla bind ñëpp ne tout kon Moustapha dafa dul jóg ba ñu koy gannaawal sëriñ bu mat sëriñ dëgg nabi lay teg ci kanamam mooy doon imaamam mooy newo silaam sëriñ bu mat sëkk dëgg dëgg Moustapha teg tanam du jël benn kenn di ci teg tanoo rasulullah ndax aatiku naa wa aatiku naa te yant bi wen ci tuxoo ku tax tanoo ku ko topp a jub ku ko topp a jub nañu bàyyi caaxaan yi parce que ñun du ñëw fi ci dëkk bi ngir alal de déedéet dañoo ñëw ngir ku ci yàlla baaxee nga am ci li nga ko jot tey jot ko ëllëg yërmande yàlla la ñu andi moo tax duñu contre gouvernement ndaxte ñu fekkal yàlla dogal ñu ciy dugg suñu service première moom lañ gëm muy bu yàlla bi mu teg ci loxol yoon mu teg ci loxol kii ñuy jiite waaye gouvernement leneen la ndaxte gauche droite dafa am kii droite la mais kii gauche la loo ci dindi mu manqué ku xam ne du contre gouvernement ak yow lu sayoon yow am nga looy dox doxal loolu na leer nit ñi mais jullit yëpp ñu ne ñoo dajale seen alal pour seen i jàkk dajale seen alal di dimbali seen i imaam di leen fay mais dañuy ñëw di ko ji ñu gouvernement musiba bu amee yàlla mer ba yàq géej gi nii daf ko ci alquran saxaral fasaadu fil barri wal bahri bimaa kasabat aydiyan naas géej gi day yàqu jéeri ji yàqu moo tax nawet bi léegi toujours day baax lii du baax ba pare géej gi amatul jën du tax ngeen di dem Mauritanie ndax da ngeen baree wàllu te bari caaxaan kat football beeg làmb tout caaxaan la moo tax yàlla bal bal xum si sàcci njël ak bona li ñoom ñu ngi ci sikki sàkk yu ma xiyam yàlla ak bona di fo waaye farka it ñoo ma tax samaaw bi duxaan mu bi mu ñël ba keroog asamaan bi indi niir ba niir booba mooy duxaan comme saxaar keroog la ñuy jàpp jant bi niir bi wàcce mu lëndëm malaaka yi wàcc ku ñu rey day dëpp bu maa di génn nag mooy eggali tiri ba mooy firi loolu xew tubaab yi jaaxle ñoom ñu defoon yii ñëpp jaaxle tout jaaxle yàlla jaaxle boobu lay jiital door a yëg ci Mahdi ñëpp xam ne yàlla moomoon te yàlla man loolu moo tax affaire bi di njàng njàng jàng nga ba sonn même tiim addis firi ba tey doo ko mën a firi ndax jaarul ci firi nii dafa am xigma am furxaan du njàng furqaan mooy xam-xam bi ci biir alxuraan mais hikma mooy leeral li war a ne te kii jàng dong du ko man du ko man moo tax yàlla ma nuyu tax ma faa du tee xayran kasira ku jox xikma jox naa la yiw bu bari bu may sëkkalu ilaa albaab waaye du xalaat lu dul ñu borom borom xel yàlla baax seeni xel ñooñ ñooy xalaat te ñun bu ñu amee gan fi ñu féete ñun sa gan bu ñëwee war na cee jël ndax fa nga féete la lay dégloo ku féete ci yàlla Moustapha soo amee ku féete ci àddina bu dikkee dañ koy xamal fi nga féete ndax boo yow ëllëg nga jàq dem ci moom mu jox na fa mu féete yow lu tax doo ko wax fi nga féete jël lislaam bépp jënd ko àddina foo moom mënul ànd ak yàlla mënul ne ndax yàlla dafa laaj lu ci alxuraan mu ne na wa maa xalaqnaa samaa'i wal arda wa maa saalika sannu li si ne kafaroo fawaylun li si ne kafaroo mi na naar mu ne bintu binduma asamaan ak suuf ak li ci diggante li ci po nee na loolu njortey ñi weddi yàlla lañu te dinaa leen dugal ëllëg safara wu ñu naa bi ci loolu ñu def aaya booba jàng ko la yàlla wax ko ci suuf safa alors afa xasibtum annamaa xalaqnaakum abasa ndax da ngeen jot dama leen bind ngir po wa annakum ilaynaa laa turja'uun am da ngeen yaakaar ne du ngeen dellu ci man yàlla ni ngeen dee noonu laa leen di dekkale bu ngeen ko weddoo xool leen jiwu bi gerte gi da jël ji te lu dee la mu ne nga jël dugub ji ji te lu dee la mu taw ma jënd lépp ba pare doublé ko benn pepp bi jur ay ga ay dugub yu bare bari benn pepp mu ne loolu laa leen di ree leen ci suuf comme ni ñu yóbboo dugoo gerte ci suuf bu bu seen waxtu jotee ma dëkkal leen boo ko bëggee wedd nag demal ci mbay mi yàllaa ko wax leen demal ca mbay ma nga xam ndax dëkk dëgg la am du dëgg ndax li ngeen suul ci suuf dafa dee waaye bi ma ko dekkalee waxuma yem ci benn pepp bu ne ay ay peppi pepp ay gub lay jënd benn gerte bu nekk gubi gub ak doomi gerte yu bari yoroog ba ngay dem tool yow yaa ngi yóbbu benn ndax di dem sa kër yombuy sareet mbaa ab oto kookan la koo koy jëlil mooy ki dërëtewul mooy fàllimaa yi wax la anna allah anna kulli seen xadir yàlla lépp dërëtewul yàlla buñ nee ba wóoluñu ko noonu nag mooy indi sàggan gi buñ nee yàlla ñu sàggan ndax ñàkk a wóolu day tax mais ku wóolu yàlla doo sàggan ci yàlla te léegi la kilifa gi wax ndax yeesal booba dañu dimbal suñu islam kon bëgg na dégg lislaam bi rek bëgg na dégg fu nit di jaar fu mucc ndax loola sa gàllaay ji àddina la fu la nit fekk bala bu ka defee ñun ñi nga xam ne loo fay dox na la leer na yàlla wax balaa xul mu bind wax leeral leen jotale leen ko te na leer na leer comme ni ma koy waxee na leer moo tax max bii boo ci waxee baa nit ne man la na dem ñu dem ci addis dañ dem ci alxuraan dem ci oxru solaay bu dee dëgg lee xam ko bu dul dëgg lee ñu xam ko te foofu la dëgg bi ne moo tax mooy naasiral xaq moom Moustapha biir xaq lépp looy muy dëgg demal ci moom bu dee dëgg nga xam bu dul dëgg nga xam boo koy doomi Abdoulaye moo tax Mamadou Ngom dëkk bu mu mas dem yonente lu fay wane yonente rek mooy xaritam mooy mooy doxam mooy dundum mooy li mu bëgg ku ne dund ko daf ko dund ba pare di ko dundal ci ñun gisoo moo tax ba ku jur doom bu góor rek sama xel yonent bi rek xayraan ba pare dalilu xayraan mooy Seydina Muhammad mais mbooloo mi nu mu ko tuddee nu ko yonent bi tuddee dalailu xayraan turandooy Seydina Muhammad lañu soo paree lu ñu sawaree mu def baax bàyyi bon jàpp dëgg bàyyi neen moo taxoon mu way ka ne bu ngeen dematee école wax leen ne xam-xam di jullee gu war ak asaka ak dem màkk rek xam-xam mooy ràññee mbon ak baax ràññee dëgg ak ne nee na loolu xam-xam est-ce que loolu mu ngi fi ak ngi fi ku ràññee dëgg ak neen yi ñuy wax nii taay duñ ko wax làmb daa araam football araam parce que ba poussé ni bañ ko daggee di ko football nii moo tax football dafa mel da ngay ñaawal da nga delluwaat cosaan da ngay fàttalee lañ defoon ba beneen bi mooy da ngay sol loo xam ne sa awra du nëbbu beneen bi da ngay gaañ sa moromu jullit te gaañ sa moromu jullit dafa araam ci islam bul tuur deretu jullit bul jël alalam te da ngeen di gaañante ba pare dañuy jibarante ba pare dafa am foot dafa am ah, kii euh, pari foot dafa am kart dafa am carte bon boo dee jullit de dafa yëfi jullit nga wax fi jullit nga wax ak nit ñi ku bëgg nag dem def kenn moomu la yàllaa la moom waaye nit moomu la jinne moomu nag su boobaa yaay def rek sa coobare waaye bu ci dugal yàlla bu ci dugal yàlla bu ci dugal sëñ naa Muhammad mais alal nag dafa yàqal yu bari fi mu ne alal képp ku yor alal loo def mu ne ñu ne dagal na te vraiment de crise bii ñu mooy yàlla ba yàlla mer ngay koy jiñ gouvernement moo yàlla rek boo mooy yàlla kooku moomul sa kër moomul sa njaboot ngay mooy ba yàlla gouvernement eh, loolu du diine loolu boo xamee yàlla doo ko def ñun ñii la lépp ñu la bàkkaar bi benn président benn ñoom du ñëw sa kër yaa yilif say doom yaa takka jabar mu neex la nga ami doom di ngeen bàyyi su leen neex jëlee sa bopp doo jubal daa di nga yus ku takka jabar ba mu yàgg mu takkaat keneen dem jeng su ku dëkk ki jeng jàpp si ku mu dëkk rek naa maa nga jëm a ak iliyina di ñaawal ku dëkk ki di ko ñaawal loolu lan la te ay aalima kay def ah nga takk ñaar ba ñett ñeent nga naan kenn ko wàcce naa ndax néeg bi léegi dafa xam te njaboot gi màgg nañ di uti lay yow yaa ko mag te wàccoo di ko wàcce islam ban yaa ko mag te moo tax maadu yi mandu lay indi ci suuf si am njub comme ni muy fekke mu fees si bàkkara njuba yi mandu googu nag mooy indi day atte yoon du jàng fet atte yoon day atte day ànd ak yàlla ànd ak bi waaw fii nag yéen ñii adayaan bii leeru yàllaa fi jaar mu dekkiwaat ni ci toobareem parce que du neen du neen de boo gisee xale yi farlu ci dañoo bëgg a jariñu waaye yàlla mooy def loolu kenn mënu ci dara fi mu ne taalam dara du ko fay dara du ko fay lu ngeen farlu rek farlu ngeen mu gën a dëgër dara du fay taalam te képp ku yàlla dimbali ba nga am màggal yonent sa réew war nga sant ba mu ndax xam nga jamono bi dañ tumuraankeel yonent bi di yëkki ñeneen te Moustapha dong nga jóg ci kaw kenn du ko tiim du Busiru wax na ci xam si ya kay ba dal xaaru xeekal ambiyaawu yar samaan ma tuwarab xaar samaan Moustapha la yàlla yëg ci bu fekkee ne asamaan ngay lim asamaan bi tiim asamaan asamaan tiimu ko mooy Seydina Muhammad kay ma doon xaaru ni nga suta yonante yi ni nga suta لا فورا وخرب عادتنا منك دون خمو وسلام كوكوي مصطفى يا مركن وبدا يا رسول الله وبدا الوجود منك كريم جو حلقت خان جو مخا جوزا تمضي منك مدير أسفرت عن خليلة خراو ليس مولد ليسي كامل الدين بسرعة قد ولد المصطفى وهو الخلاق ak moom guddi googa ne ko loraange amul Mustafa dikka na Seydina Muhammadu Rasulallah loraange amul ndax Mustafa dikka na mu ne jinne yaa jinne yaa ngay wayu Rasulullah ba waa Makka ngay daw jinne yaa ngay way guddi gërëm te bu juddoo ba waa Makka ji sallallahu alayhi wa sallam محمد سيدنا محمد سيدنا deuxième adjoint maire commune Adéane. jërëjëf monsieur euh, tey de dañ la gisoon tey nga ñëw euh, seet si euh, waa Dala Ilul Xayraat fii seen gàmmu Adéane bi lan moo taxoon dañ la dañ ñoom ñoo la invité tey ba nga ñëw te lan moo tax ba nga ba ngay sa tànk ba nga yëkkatiku ba nga ñëw ziar fii. waaw comme fii soo suñu dëkk la. Il y a aussi euh, maire bi euh, Arnaud Sonko a un voyage donc nous avons organisé, nous, Moussa Ndiaye nous nous ci mairie euh, trois reprises pour y ñu vraiment avons événement avons fait un bi mais nous dañ vraiment reprendre nous comme ça se passe au niveau de la commune il va falloir que nous mettions assister pour nous. nous nous de nous Euh, ni nga gis euh, comme niñ ko waxee rek comme ñoom dañ ko daan def seen kilifa mu fi daan ñëw El Hadj Modou Moustapha Ngom dépp bu mu demaatee defatuñ ko dañ ko arrêté tey ñu bëgg ko dekkalaat tey ban taxawaay ngay am ba nga xamante ne bés bu gàmm ñëwaatee euh, ban taxawaay nga waaw comme xam nga gàmmu baax na si si dëkk si communauté du coup ñun tamit municipalité loo xam ne day regroupé nit ñi si biir commune bi. war nañu tamit suñ ko teel a yëg aussi mun si mun si jóg aussi mën a xool si lu ñu mën a def pour affaire bi mën a jaar yoon moo tax loolu moom vraiment euh, yàlla baax na bëgg nañu vraiment euh, jàpp si bu baax baax. man laaj la question commune ça bu moom si c'est si commune bi euh, tey ban jafe-jafe nga am si mairie bi depuis ñu ko jëlee ba léegi. waaw mairie bi xam nga mun mairie mairie ku nga xam ne la mairie rurale la ñu si. mi si commune rurale la di ko jafe-jafe mënul mënul euh, financièrement aussi mairie bi non non. donc nous bëgg a faire un investissement des fois des des xaw métti mais de toute façon yàlla baax na ñu ngi ñu ngi yaakaar si partenaires yi ñu mun ñu ñëw jàppale bu baax a baax ndax suñu projet ñu bëgg mu nous am. merci beaucoup monsieur le maire. je dis merci beaucoup monsieur le maire. ok merci beaucoup di ñaan daal déwén tamit yàlla wér meññu wérgu yaram ak euh, ñu mun koo tal kéemaansa muy ñëw fekkee ko si jàmm merci beaucoup.